xawqala rabbi ayn al abda liitim al qasd awnaka yaa mu'in bika nastain wala xawla wala quwata illa bika yaa rabbal alamin bakki julli di bakk taalibe yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu nañu am mbégte teew fi seen kanam ngir jàngat lenn ci ay bind yoo xam ne dana nu amal njariñ insha allahu taala xam naa di dogal ngant ak ay jéggalu bu baax ci tardement gi nga xam ne dab nanu te li ko sabab mooy yoon yi rek ni mu demee mooy li nu gàllankoor waaye ban jógee xaw naa yàgg waaye nu ngi ci jéggalu bokk yépp léegi ni xëy na war naa fekk xaaj bu njëkk bi jàll di dogal ngànt itam boroom xam-xam yi nga xam ne nu ngi teewlu ci tomb bii nga xam ne moom lañ tànn ngir bëgg koo waxtaane xam ngeen ne weer wi nu nekk dara gënu cee yey waxtaane jëmm weer wi ak boroom weer wi sallallahu alayhi wa di ndokkeel jullit ñépp ci bis bu màgg bii nu weesu muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mel na ne am na ay bind ak ay douze ay leson yoo xam ne mën nañ koo jàng ci gàmmu lu tax nu war a gàmmu ban njariñ moo ci nekk fonk gi nga xam ne itam nag nit yàlla yépp te xam yàlla fonk nañ ko rawatina ku mel ne Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu taala anhu xam nañ ne sunu borom subhaanahu wa taala moo na wax ci alxuraan ne su ma leen joxee xéewal war ngeen ma delloo njukkalal sant ma mooy war ngeen ma sant wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis bu la yàlla joxee xéewal daa bëgg nga sant ko ca xéewal googee te ñun ñëpp xam nañ ne xéewal yi suñu borom wàccee ci ci àdduna jox ko jaam ñi bari na lool waaye xéewal ga ca gën a màgg gën caa rëy mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yey na jaadu na nu sant yàlla ci xéewal gu màgg googu mu baaxe xeet wi wala mu baaxe ko sax albashariya jamaa bindeef yépp aayaat yi nga xam ne day tegtale nu war a sant xéewali yàlla yi lu baree bari la ci alquran bokk na ci sunu wax ne nicmatan min indina kadalika najzi man shakar yooyu ma leen jox ay xéewal la yu bàyyi ko ci nun waaye ku sant ku nekk ñu fay la ku sant ñu fay la fa xud ma aataytuka wa kun min ash-shakirina suñ borom nee na li ma la jox téye ko waaye na nga bokk ci ñi may sant nag ñi nga xam ne bu mu leen joxee xéewal ñu sant ma na nga ca bokk waxaan na feneen ne wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati lum ca daanele la'allakum tashkuruna moo leen dimbali jàppale leen ci ndimbalam wërsëgal leen dégg nga ndax ngeen sant yàlla waa lan ndimbal kon yi yi yàlla joxe jox ko doomu aadama yi jan ndimbal moo ci gën a màgg gën cee rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kadalika yubayinu lakum ayaatihi laallakum tashkuruuna waxaa na feneen ne wala tukabbiru llaha ma hadakum wa laallakum tashkuruuna waaye nag mu xam gi xam nit ñi moom sunu borom subhanahu wa mu xam ne li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla joxee xéewal itam duñ duñ ci sant yàlla ci xéewal ga moo tax mu wax ne walakin akthara annaasi la na li ëpp ci nit ñi duñu sant kon yooyu yëpp ay aayaat la yu bari ak yun tudd yoo xam ne bu ci nekk dafa nuy tegtale ne xéewal gi nu suñ borom baaxee war na saa su ne waxtu ne ñu déjà delloo suñ borom njukkalal di ko sant di ko gërëm subhaanahu wa taala wala tajidu aksharahum shakirina suñu borom nee na rek ah, bari nañu maanaam ñu ëpp ci nit ñi doon leen fekk ñu ay way sant déedéet bi waxee waa kër daawuda yonent yàlla daawuda daf leen a wax ne yéen seenub liggéey na doon saxoo di ma sant i'malu ala daawud shukra waaye lu mu ci teg wa xalilum min ibadiya shakur yéen waa kër seenub liggéey na doon di ma sant man yàlla waaye ak néew ci sama jaam ñu may sant ak néew ci sama jaam ñu may sant aay jooju ku ñuy wax Fudaylu rahmatullahi alayhi dafa wax ne aay ji suñ borom ne i'malu ala daawuda shukra nee na bi suñ borom waxee loolu sayidna daawuda nee na yonent yàlla daawuda dafa dafa wax ne ko yaa rabbi kayfa ashkuruk wa shukru ni'matun mink yow sama borom nan laa lay sante te xéewal te sant ci boppam xéewal la gu bàyyi koo ci yow yàlla man nu ma lay sante kon ndax sant kat ak xéewal la gu bàyyi koo ci yow yàlla kon ma lay sant suñ borom nee na suñ borom ne ko ala shakartani xiina alimta anna ni'mata nii léegi nag sant nga ma bi nga xamee ne xéewal gi ci man la bàyyi ko booba booba nga ma sant kon xam ne naar bi fi indi indi xorom si loolu sant naar bi la kon da dangay xam ne xéewal gii nga am ak nu ma toll sun borom ma la ko yox saa soo ko xasee xam rek sant nga yàlla loolu la Fodé nettali ci ay jooju am na xadis boo xam ne Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu moo ko nettali ñaar la benn mi ngi ci saxiix nisaa yi benn mi ñëw na ci muslim ci ay riwaa ay baat yu wuute rek waaye benn benn maanaam bi la dafa wax ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bis mu ci jàkka ji fekk benn xalqa menn mbooloo ci saxaaba yi ñu toog dajaloo foofu yonent bi laaj leen ana lu leen fi tax a daje ñu ne ko nun day dañ fee daje di ñaan yàlla ak di ko sant ci gindi gim nu gindi ci lislaam ak xéewale gim nu gim nu xéewale yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nadu llaha wa nahmaduhu ala ma hadaana li diinihi wa manna alayna bika ne mu ne leen mu mu giñ loo leen ci yàlla ne leen ndax lool dong moo leen fi tax a daje mu giñ ci yàlla ne ko looloon na fi tax daje mu ne tuumaalu ma leen ne da ngeen waxu lu lu amut déedéet waaye Seydina Jibril moo ñëw leegi fi man yonent bi wax mu leen Seydina Jibril moo ñëw léegi fi man ne ma sa boroom day subhaanahu wa taala nee na yubaahi bikumul malaaikata mi ngi puukarewoo di di di damoo ci yéen ñi malayka yi mi ngi puukarewoo yéen ñi ci malayka yi maanaam di sant seen jëf ju màgg ji mooy dajaloo gi ngeen dajaloo ci barab bii de fàttaliku xéewal gi mu leen xéewale gindi leen ci islaam ba noppi boo la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yi ngeen ji bindéef sant ko ngeen di ko sant suñu boroom mi ngi koy puukarewoo ci malayka yi kon loolu ñu dégg boobu te lu néew la nettali ci xadis waaye xadis bu ñor gi mu ko ñor ak it daa am bis itam mu daje ci ci daje bu mel noonu nettali leen xadis bi mu déggoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dañ ci dégg ne kon daje dajee ngir sant xéewalug yàlla lu sax la ci lislaam donte ñu bare bari ci jamono yi yéen ngi dégg wax ji bari loolu ñu di ko weddekat di ko bidaalakat di ko dëkkal fer fu ne di ko di ko araamal sax ñu àgg ci di ko araamal loole lépp buñ sukkandoo ci hadis yi ak aayat yi da gis ne lu sax ci alxuraan waaye lu sax la ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa daje ngir sant yàlla lu war la lu war eh, buñ ko jàngatee kon dañu gis ne eh, feeñ gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa feeñ na ko jamono loolu ab noofalaay ñeel bépp bakkan buy dund waaye banneexu bépp xol la boo xam ne nii bëgg yàlla ma nga ca waaye yërmande la maanaam rahmatun muhdatun lil alamina yërmande la joo xam ne dañ koo may bindeef yi ni sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ne innama ana rahmatun muhdat man yërmande la juñ may xeet bi waaye xéewal la goo xam ne suñ borom moo ko baaxee bindeef yëpp ñëpp kenn mucc ci muy ku gëm yàlla ku gëmul yàlla yonent bi xéewal la gul suñ borom baax te loolu dana leer ci kanam insha allah su ko waxtu mayee waaye loolu ci lañu ñu xame ne kon war na te yey na bindeef yëpp mën a sant yàlla ci xéewal googu gërëm ko ci itam dàkk nag bisub mawlid mii bis bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono dégg nga loolu ngir occasion la ngir fàttali nit ñi fàttali nit ñi siiratu nabi sallallahu la wasallam al atira maanaam jaar-jaari yonent bi sallallahu alayhi dundam gu sell googee gu màgg googee dundal gàmmu moyen la ngir fàttali ci nit ñi jaar-jaar yonent ndax gàmm mooy lan nettali histoire yonent bi fa mu jaaroon nam doon dunde nam doon jëflanteek nit ñi ci jikkoom yu sellee jikkoom yu baax ya loolu gàmm occasion la ci dajale nit ñi ngir fàttali leen loolu te buñ leen ko fàttalee danañ ca xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te suñ ko xamee danañ ko bëgg nit mënut a bëgg lu mu xamut te bëgg yonent bi ca jëpp xéewalu àdduna ak àllaaxira nekk sallallahu alayhi kon dajale koo nga xam ne kon nit ñaa ngi ko dajaloo tàmbalee ca salafu saale nit yàlla yu baax ya boo ñëwee ba ci suñ réew mii nit yàlla yi fi nekk te mën nañu wax na kenn ca bopp ba ci ñi gën a dundal gàmm gën a màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mawlaana al abdul xadim radiallahu taala anhu te insha allah taala dana dana leer lool ci tomb yi ñuy bëgg a wax moo tax nu bëgg a teg tomb bi ci fàttaliku wala jàngat wala gëstu lenn ci ni sëriñ bi doon dundale gàmmu ak cofeel gi mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sax ba xattaa weer wi ci maanaam ci yonent bi sallallahu alayhi gi mu ci amoon daañ bëgg a waxtaane kon tomb bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu nga xam ne loolu moo waral mooy sabab bi tax mu saxoo di dundal gàmmu ak di ko màggal waaye coono bi nga xam ne daana ko ci daj ci dundal gàmmu ak màggal ko ak yoon wi nga xam ne ci la jaaroon ngir dundal ko loolu su ko waxte maye ay tomb yu bari yoo xam ne xëy na insha allah taala dañ ko waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande xam ne bindeef yëpp la ko yàlla jagleel ni mu ko waxoon léegi waaye mooy xitaabal ambiya wal moo mujj ci yonent yi suñu borom yónni jox leen xam-xamu nubuwa waaye mooy kenn ki nga xam ne suñu borom moo ko tànn moo ko tànn sellal ko ba noppi def ko xaritam ber ko muy kenn koo xam ne amul kenn ku mel ne moom muy yonent bi sallallahu alayhi wa ba noppi ràngal ko mboolem jikko yu gërëm yëpp mu la mu ràngoo ko waaye takkaayal ko mboolem luy alkamal wal jamal luy ak mat akub taarub jikko muy taarub zaahir taarub baatin moom la ko suñ borom ràngal sallallahu alayhi wa sallam kon danañ ci dégg ne falaa yatimu imaanul mar'i illa illa garasa xubbahu sallallahu alayhi wa fi suwaydaa i xalbi maanaam ngëmug benn jëm du mat lu dul ne dafa jëmbat ci biir xolam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu suñ borom moo na ko wax annabiyu awla bil muminina min anfusihim suñ borom nee na yonent bi jullit ñi ñi gëm yàlla yonent bi moo gën a yey ci seen bakkanu bopp bi yow mi gëm yàlla bu dee gëm yàlla gi dëgg la ci yow sa bakkanu bopp bi yonent bi moo ci gën a yey su ko laajee da nga ko joxe moo tax saxaaba yi noonu lañ defoon diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ba mu laajee bakkan dañ koo jox bakkan bañ laajee alal mu jox leen alal moom la sëñ bi junj ca jës bu tanaazaul mawta maa wal kullu minhum shajaa yabki liqa aw yusra li xubbi maaxil xumami xëccoo na dañoo xëccoo deega xëccoo deega te doon ay jàmbaar lool taxaw jàmbaarloog yéefar yi lu ko waral li xubbi maaxil xumami bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waral ñu xëccoo deega nar a joxe seeni bakkan bañ solee seen bubbi koŋ ya fas ñu ko yéene summi xare wuñ kenn jëpp ci woon da nga delluwaat sa kër lu ko waral li xubbi maahil xumami bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa mooy yi nga xam ne mooy far far njàqare sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne moom it dana firnde loolu neewoon na laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmaina kenn ci yéen ngëmum du mat lu dul ne man dama koo gënal ndayam gënal ko baayam gënal ko ay doom gënal ko mboolem nit ñi gënal ko mboolem nit ñi eh, sun borom ne wax na ci alxuraan ne aaya boo xam ne alqaadi Iyaad ni ko firee te mooy aaya sun borom wax ne qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa ba aaya ja jeex ci suuratu taw qaadi Iyaad ni mu ko firee dafa wax ne li aaya jooju daan looy sëkk tegtal ci ne ndax suñu borom dafa ne su fekkente ne seen bakkan yi seen bakkan yi bopp yi seeni doom seeni alal seeni wayjur seeni bokk seeni jegañaale ñii ngeen gën a bëgg ci yàlla ak yonente bi boobaa wéy leen rek ba dajeeg yàlla bis bu ngeen dajeeg yàlla da xam ne bëgg yàlla ak yonente bi dara melul ne moom dara melul ne moom xanaa dafa ne kon loolu doy na sëkk ab soññee akub tegtal dilaa la ak lay wu dëgg ci na te wujubul fard la maanaam farata la ci bépp jullit muy màggal gane jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ah, nee na suñu borom dajaa tëg koo dafa dajaa ci mujjug aaya dafa ne fatarabasu xatta yaati allahu bi amri ba muy daaneel mbugal mu réela leen dig kon loolu ñi nga xam ne lool yi moo leen gënal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Sëriñ Tuubaa mi dégg loolu moom dégg aaya jooju boo demee ci xasida gi mu tënki a'uuzu billahi mina shaytaani rajim daa wax ne yaa man lahu amru kun lii waxmini abadan wa salli daban ala man xubbuhu furida yow sama borom yow mi xam ne yaa moom mbir yëpp maa ngi lay ñaan nga aar ma te julli ci ki nga xam ne ak bëggam dañ koo farataal ala man xubbuhu furida ak bëggam loolu Sëñ Tuubaa bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa la euh, noonu la tudde waxe moom sëriñ bi ci ñàkk bëgg yonente bi sallallahu alayhi sallam ne pertaange gu rëy la man ñàkk bëgg yonte bi wala yaasu billah nee na pertaange gënu koo rëy moom la wax ci bay doone zahida fi najaati wal falaaxi man qalbuhu lam yaxyu xubbal maaxi nee ki nga xam ne xolam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekku ca kooka wan na gannaaw ak texe wan na gannaaw mucc adduna alaxira wala yaasu billah kon pertaange noonu waxaan na feneen ne man lam yuhibba rasulallahi sayidina محمدا سيد السادات ذا المدد فجاهل غره بنيانه ويرى في البر والبحر خزيانا مع البدد nee na képp koo xam ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku réere ngi noonu ku sànkoo ngi noonu nee na la mu war na ko war na ko teyit ëllëg yowmal xiyaam pertange képp lay dajal wañu yasubillah loolu ñëw na ci euh, ci muntaxabat boobu nga xam dajale woon nañ ko muy mañ moo saani bi ñëw na ci bayit yooyu ma wax léegi moom ci boppam moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu bëgg gi mu bëgg yonent mu fees dell ci xolam yëmul ci mu des xol bi rek waaye daf koy wax sax da koy wax da koy wax di wax ne moom laa doyloo sëkk bëgg bëgg yonent bi mooy li ma doy sëkk ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi nee na doyloo naa sëkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy koom moom laa am kuñ jox lu doy nag da nga koy doy loo te man bëgg yonent bi doy na ma sëkk moom loolu la lool ci futuuxul mukarram fii am daahil mukarram waxaat ne xariqtu euh, fi bahri mahabbati rasul wa artaji bihi ridaa wal xabul nee na bëgg yonent bi bu doon géeja naa ci biir dama caa lap man Sëriñ Tuubaa nee bëgg yonent bi bu géej la dama cee rab lap te jubluwa ci lu sàkku ngërëmal yàlla ak sama beneen bay du ko gën a doy waar nee na sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azala fi sana bi ma na dam maanaam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoonte ne ndox muy mandal doomu aadama muy mandal la nga xam ne nit bu ko naanee tàggook nee na man noonu la bëgg gi def dama cee mandi sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azaalu bi sanaa bi ma fi sanaa bi ma ko bi moo tax du ma dañ mukk ko tagg waxtu wane maa ngi koy tagg ko jot ay tagg dégg nga la ma waxoon salaatu sitta bi madaxi sitta تأتيه بتم انتسائي lahu alay lawjillaahi dayru sanan mustahsanin kulla yow ma yuftaaru nee mu ne danaa ko yeesal ay tagg ameel naa ko barub tagg barub tagg laa ko ameel kon foofu la bëgg meloon ci moom dem na ba wax ne shawqi wa wuddi wa mahabbati maa liman jalaalan wa jamaalan jamaa sama cofeel sama bëgg ñeewante gi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo loolu lépp yonent bi laa ko jox sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moo dajale jamaal ak jalaal sallallahu alayhi wa moo tax mu jëmbat ci biir xolom moom sëriñ bi radiyallahu anhu bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba mu feeñ lool ci muy gëstu di gëstu siiraam ci dundam téere buy wax ci yonent bi sallallahu alayhi mu di ko gëstu di ko dajale ba loolu moo ko yóbbe woon mu yónni woon taalibeem ba sëriñ Ibrahima Amar yónni ko mu di ko wëral téerab euh, alxastalaani mi mawaahibu ladunniya boobu mu di ko wër ngir gëstu jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla dogal Cheikh Ibrahima Amar moomu di wër di wër ba àgg ci Cheikh Ahmadou ibn Guddin moom mi nga xam ne kilifa euh, Tiijaan la woon gu amoon martaba ci suñu borom moo jox téere bi Cheikh Ibrahima Amar jox ko addiyee Sëñ Tuubaa mu andil ko ko loolu lépp day wane cofeel goo xam ne kon sëriñ bi bëgg na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu fonk lool bisam bi di ko dundal muy muy mu gàmm wax ci lu bëree bëri loo xam ne xëy na waxtu bi du ngi wax ne waxtu bi mi ngi mi ngi jege waaye kon dana ci doy sëkk bayit yi ñuy daanele nga xam ne moom lépp lu mu bëgg lépp lu mu mën a doon rek dindi na ko ci xolam ba mu des bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam du ay doom du njaboot du du alal du dara mahat mahabatiyal muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahli na loola daa dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdullahu xadiman lahu muskaana li sanada kon noo ngi taxalu wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu